بيت أن رسول الله بشراني والبشر عند رسول لله مأمول أنا بيت أن رسول لله بشراني والبشر عند رسول لله مأمول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala nabiyi ilkarim sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi sawi ridwaani wa tamkin bokki jullit yi bokki talibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi fii tey ci Madiyana siis ci keppaaru sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Chouaïbou ci teewaayub sëriñ Amsatu Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad ak sëriñ Abdoul Muhaymin moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ak sëriñ Jili moom Cheikh Chouaïbou Mbàkke ak sëriñ Moustapha Mahmoudan moom sëriñ Mahmoudan Jobbe ak sëriñ Cheikhouna Mbàkke ak mboolem mbokki taalibe yi nekk ci biir jataay bi yëpp ci kilifteefuk Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi xalifa général de Mouride ñuy ñaan sun borom wan nu kiimaanu gudd fan ci jëmmam ci kilifteef ak njiitul sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdul Ahad waaye ci njiital nag sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad Cheikhul Xadim moom sëñ Abdul Ahad am liggéey bu rëy bu muy taxawal lislaam bokk ci ndami sëñ Tuubaa yi wàcc bu yooti kulluha masajida te suuf si suufu sëñ Tuubaa muy Tuubaa al mahrusa rabbis tajib wal tukammil maa nawaytu la daa Tuubaa lati bi ka tub naa fii ka bunyaana ci taxawaay bu rafet boobu nga xam ni ñaan gu nangu la wal tusbitan fii jamaatan tuqimu salawaatul xamsa da ban yaa hakim ci la amee yitte ak pas-pas ak laxasaay gu dëgër ci taxawal joma ci jànnatu naayim ci wetu tuuba njarim waaye lépp nag mu def ko ci kilifteefub sëñ Amsatu Mbàkke mi nga xamante ni moom la bàyyee léppam ci ni yoon wi baaxoo muy rakk topp mag moo tax ñoqlewul ba ci ña ca kaw waaye sëñ am doy na ko ci lépp moo tax mu yemale lépp ci moom mu wuutu fi ay magam yëpp nag ci taxawaay bu rafet boo xamante ni nii noonu la yoon wi baaxoo doxe mu ci woo nag mboolem taalibe yi Sëñ Tuubaa di ci woo mboolem umma islaamiya bi ca taggu xeer wa muy benn panub safar di safarul mubaarak di weeru am barke weer wu am taxawaay weeru wu mat a bàyyi xel ca lislaam daan ko sidd naka jëkk rawatina nag ndawal Sëriñ Tuubaa lii ci feeñ kon noo gi ñaan bokki talibe yi bokki jullit yi ci taxawaay yi ak pas-pas yi ak positif yi bi leen sëñ seexul xaddim di woo ci liggéey bu rëy bii nga xamante ni moom lay liggéeyal Sëriñ Tuubaa te di ko def ci benn fanu safar di ko yëgal ñépp loola nag dafay wane rek ndamal sëñ Tuubaa ci lislaam ndamal sëñ bi ci taxaw jullit ñi ba tax na mu waxoon soxna Fatija ni ko lépp lu ma ñaan suñu boroom nangu na waaye ku ca bëgg a ëppale nag dangay sax ci ak njub Cheikhul Khadim mi foofa rek la teg ci tànkam moo tax sëñ xam surtout mi ngi kilifa gi mu ngi woo mboolem bokk yi mboolem taalibe yi mboolem jullit yi ci ñu bàyyi xel bis boobu yi bàyyi xel liggéey boobu di ko ñaanal suñ borom tabaraka wa taala mu li liggéey ba eh, def ko xusnul xaatima te mu tàmbaliwaat yeneen yu bare bari te àggale ko te lépp ànd ak ngërëmal sëñ Tuubaa bu ko defee ñu bàyyi kàddu gi ak sëriñ Abdou Samad mi nga xamante ne ni mooy jël kàddu ci turu mboolem bokk yëpp nag rawatina Cheikh Mouhamadul Muntaxa wala kàddug sëñ Siidi wala kàddug sëñ Amsatu dana fir mën a représenté bokk yëpp bu ko defee ñu jox sëriñ bi mu yëkkati kàddu yu soññee ak kàddu yu fàttali ci liggéey bu barkeel bii nga xamante ne nii Seexul Xaddim yëkkatil na ko sëñ Tuubaa te lépp rek di ndamal sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullah salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yëpp rawatina bokki taalibi murid yi yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew noo ngi leen di nuyu ci baat ak kilifteefu ak cheikh Mouhamadul Muntaqa mi fi nekkal Cheikhul Xadim di ko ñaana mu yàgg fi lool te wér lool te mboolem lu mu yéenee liggéeyal sëriñ bi mu def ko ni ko bëggee te ñu ànd moom ci kilifteefu Cheikh Sidi mo Cheikh Abdoul Ahad ak i rakkam ak i bokkam sëriñ Xamsatu moo sàkku jataay bii ñu defe ko ci barab bii ngir ak defar ak benn la ci biiru bokk ndax maa nga cam péncam te bunu nu fa woon ñu wisi ko waaye moo ne ma bàyyil ma ñëw defe ko foofii ndax rek nit ñi gën a xam ne nun jenn jëmm lañ du ñaar koo ci gis gis nga ka des koo ci waxalit wax nga ka ca des loolu yi moo waral benn bokk yi benn bokk yi fi ñëw ñu woo leen ngir ñu tase fii fekk jataay bii ak waxtaan wi waxtaan wi nag mbégum murit yëpp la ndax doomi Cheikh Abdoul Ahad mu tudde ko Seexul Xadim féeteeg moom bàyyi ko léppam bàyyi gi léppam moo tax jataay bi gis leen ko fi kon doyloo gi ak kóolute gi moo waral jëmmam teewu fi sëñ Xamsatu wax ne Seexul Xadim moom mii di rakkam ju ko jege di rakkam ju mu gërëm dafa nësër nësër bu rëy rëy u neex maamam waaye neex baayam te mooy tabax juma ci Tuba ijaal buyuti rabbi ma masajidi saadatan li raakiin wa saajidi waccal buyuti kullaha masajida yaa naafiyan man laa yakunu saajida yaakaar naa ne Tuuba bi ñuy def jumaay Touba mën nañoo wañ jàkk yi fi ne ak jumaa waaye bu jumaa ji noppee nag bañ tal ko jàpp naa ne àgg na foo xam ne sax raw nam xel ci natt rek jumaa yi noppi bañ ji leen julli waxuma yi àgguwut ci waaye yi noppi bañ jul bañ ji julli ëpp nañ cent soixante dix waaye jàkk yi nag moom ñaari junni yi day tegal te ni Touba di yokkoo nag ne la jàkk yokkoo ndax Touba day màgg dix huit pour cent par loolu na tax Cheikh Abdoul Ahad ma joxoon sëñ Tuubaa boppam jox ko léppam wutul ak njabootam dara daane ci njabooti jaambur yi di leen defal lam leen war a defal te bàyyee njabootu boppam sëñ tuba tey jii nag Seexul Xadiim mi gën a ndawe ci ay go ay njabootam nga xam ne ci ñi ci gën a doon gone la bu ci màggee yi ñu néew la ci mag Seexul Xadiim moom mii nag moo jëf-jëf ju rëy jii ngir mu wane ndamul sëñ Abdul Ahad ak bàyyee gëm leen bàyyee woon sëñ Tuubaa li ko sëñ Tuubaa faye loolu mooy yëkkati jumaa ju rëy rëy am yéene tabaxal ko sëñ Tuubaa ak baayam liggéeyale ko sëñ Tuubaa di ko defe ca jannatu naim ca wetu tuba njaarim suuf sax seer na lool bu ko jariñoo woon kenn du ko wax dara ndax alal maam la sëñ na koo jariñoo waaye mu jaayante ci sëñ ne dafay tabax néegub yàlla loolu lu rëy rëy la te ndam la ci yoon wi ndam la ci sëñ Xamsatu ak say bokk yëpp ak bokk yëpp kon nag loolu la sëñ Xamsatu wax ne na ñëw fii wooteel ko boppam te doyloo ma ci ma yëkkati sama kàddu sama kàddu kàddoom ngir mu yëgal ko bokk yëpp njabootu sëñ Tuubaa gépp njabootu maam Balla Aysa gépp njabootu maam ma aram gépp bokki mbusoo bi yëpp bokk yëpp seex yëpp taalibe yëpp ci biir réew mi ak bitim réew ñu yëg ne lu ko ñor la benn fanu safar la ko fas yéene teg xeer wi ca jannatu naim ñu jàpp ne nag mën naa am mu taseeg le 6 août xëy na talaata lañ gën a jàpp ne le 6 août mooy doon benn fanu safar weer nag neexut a takk waaye liñ liñ jàpp mooy talaata bu weer feeñu nag doon àllarba waaye le 6 août lañ gën a jàpp kon nag benn fanu safar bi rek mooy takk bi ci gën a wér weer wi teru rek bis ba ci jëkk ci safar ci la ñuy teg xeer bi ngir barkeeloo ko ci gannaaw bu mu ci amee ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha ak ndigalul Serigne Sidi mi seen kilifa ñoom ñëpp di suñ kilifa euh, mi ngi koy yëgal bokk yëpp ku ca mën a ñëw ca tegu xeer wa alhamdulilah mi ngi sant yàlla te di la sant am ngant yi nangul na la ko ngir xatuk jamono waaye mu mu yéene jëm mat na mi ngi lay sant tey sakko sak ñaan ci liggéey boobu yi ak ci rakkam ji di wax nag ne sëñ Cheikhul Khadim nag tàllidul loxo kenn ngir loo ca def wala loo ko ca defal xëy na nag ku andi ngir def ca du la ko gàntul waaye tàllidul loxo ndax mel na ne waajal na ko ba jekk ko ba ñeme ca door te xeer wi ñu xamee ko noonu kon na ko ñëpp xamee noonu ku ci bëgg a nag murit gi ak barkeelu kenn mënu ko cee génne waaye ñoo xam ne daal doonul lum tële wala lu muy jiim wala leneen da ko xool ba man ko ba nar ko ba jekk ko door ko yëkkati na ko ñëpp xamee noonu waaye nag day mbokk te bëgg lum ne ànd koog bokk yëpp lu muy def it bokk koog taalibe yëpp tam am kilifa jiital ko ci bàyyeeku ko léppam moo tax sëriñ Hamza di ko yëgal ñëpp fas yéene ànd ak ñëpp ndax lum ne fas na ci yéene ànd ak i bokkam waaye fas na yéene ànd ci ak taalibe Sëriñ Tuubaa loolu rek mooy woote bi di sant bokk yi fi teew yëpp nag di sant bokk yi fi teew gàtt na waaye ñu jot a teew teewal nañ ñëpp Cheikh Abdoul Mouhaymin suñu rak mi ngi nii teew. biñ ko ko leeralee rek la daal di ñëw teew ngir wuutu si bokk yëpp sëñ Moustapha moom itam sëñ Moustapha Mahamadan bu teewee mel na ne bokk yëpp teew nañ sëñ Jili Sohaybu sama rakk sëñ Cheikhouna sëñ Murtada sëñ Fallu ak bokk yi fi teew yëpp bàyyiwuñ kenn eh, eh, bokk mbokk moom nii rek la mm, dañuy bokk lañ bokk rek boo ko defee bu ñëwee rek ñëwaaleel ñi ñëwut loolu rek moo moo mooy bi kon nag noo ngi sant ñëpp di rafetlu teewaay bi ak ak taxawaay bi di ñaan rek ñu dugg ci ak jàmm te am ci mu tàmbalee ko ci mubaarakul ibtidaa yi te eggalee ko ci maymunul intaa yi te am ci ngërëmul yàlla ngërëmul sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ Abdou Samad déglu nañ bu baax a baax kàddu yu rafet yi nga xamante ne ni sëñ Abdou Samad yëkkati ko kon mbokk yi mbokk sa bopp koo xam sa bopp sa mbokk waaye mbokk sa bopp moo tax ñi fi teew teewaaleel fi ñëpp. mu mel ne liggéey bu am solo la ndax la Cheikh Mouhamadul Fadel waxoon suñ Tuubaa rek ba muy ubbi jumaa ji Tuubaa ji dañu ko fii la ñu àdduna tollale ñu tollale la fi xam na ni sax weesu nga ko waaye boo nu ko weesalee ñu weesale la ko moo tax jumaa yaa ngi ne xasar kon nu jàppe ko noonu li wax ci seexul xadim it mooy teg na tànkam fa mu ko war a teg mooy yalwaanut man amila saalihan fa li nafsihi in ahsantum ahsantum li anfusikum man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa anna laysa lil insani illa ma shaa kenn deful kenn dara kenn deful fi kenn dara lu waay def sa bopp kon liggéey baa ngoog nekku ca kenn la waajur wa daan wax rek ku dem ma dem ku demut ma dem waaj na ba jëkk yaakaaru ca kenn ku dul suñ borom ak euh, ndimbalul waajur yi nga xamante ne ni ñoo ko xàllal yoon wa teg ko ca tam fas ci yéene teg tànkam wa anna hasa sirati mustaqiman fattabi'u wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu unbitu anna rasulallahi basarani walbisur inda rasulillahi mamulo